su ko waxtaan bi léer ñu daal lay leeralal comme ni ñu lu ko leeralalee mhm. lan mooy dëmm doomu aadama ak ñoom nan la ñuy leblantee ak nan la ñuy mayantee mhm. ak seen pays yi nga xamante ne yor nañ ko fii ci Sénégal mhm. seen siège yi ak fan la ñuy waxtaanee ak fan la ñuy toogee waaw ku ci fàttali rek ñi ngi ànd sëñ Modou Fall Kéemaan sëñ Modou Fall Kéemaan nag li ma leen waxoon rek laa leen waxaat kenn duutu ko nattable ci dimbale jaami yàlla ci dimbale askan wi kon sëñ Modou Fall dañuy ci li nga xam ne moo di ndombaktul da nga def ak ndombak bayre ak ñooñu nan ngay jëflante ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg te seet si la waa xam nga tey damay faral di wax ne bayra dëgg-dëgg ku ko bëgg dag may utal bëy wu ñuul hmm. nga xam ni bëy wi lañ ca soxla mooy tànk ya ak res ba ak xëtër ga hmm. ak bopp ba hmm. ñu liggéey ca lañ cay liggéey defaral la ko waaye damay faral di wax ni boo amut kaaraange demal uti kaaraange ba pare door a jàkkaarloog sëñ Modou Kéemaan ndax li waral loolu mooy bayra bu ëpp day naan aw fan tey bari waane ne ndaw loo xamante ni faatu na la ko dal mooy bayra bu ëpp moo ko teg kon damay faral di wax ni képp koo xamante ni dañ lay sampal bayre na nga wóolu sa kaaraange ba pare door laa sampal bayre noonu la demee it ci ñi nga xamante ni dañoo bëgg alal ju gaaw di ko neef mhm. ci kenn ku ci nekk am na ci yoo xamante ni soit sax dañ koy wax am na ci yoo mhm. xamante ni ñu ngi koy defaree ci deru xaj mhm. moom lañ koy liggéeyee ndax des fois ma dégg ñu baree baree bari di wax naan da ngay joxe léegi alal ju gaaw ak nangam waaye ñoom dañ koy wax waaye mënuñu ko loolu moom maa la ko wax sëñ Modou Kéemaan noonu ñu koy joxe noonu lañ koy joxee ci bagg jaaro yi bari nañ ñoo xamante ne ñi ngi wax riirum jaaro maay borom jaaro bi maay borom samsu wal xamar baaxut jaaro yo ñuy joxe baaxut ñoom seen jaaro yo ñuy joxe baaxut loolu maa la ko wax mhm. te mboolem kuñ joxoon ab jaaro mhm. man xam naa ci lu ma leer nañ bari na ñoo xamante ni dikk nañ ni ma diw laa jëflanteel jaaro ya baaxut mhm. kon jaaro dafa am yoon jaaro bi nga xamante ni dañ koy defar buñ ko liggéey ba pare da ngay saraxe juróom-ñaar fukki nen ak juróom-ñaar saraxe juróom-ñaar fukki saabu ak juróom-ñaar liggéey jaaro bu fukki fan ak juróom nit ki door a takk bàgg jaaro bi kon jaaro bari na ñoo xamante ni dañ koy wax naan sama jaaro bi waaye am na ci ñoo xamante ni ba lañ joxee jaaro sax lañ gën lan lan umu lan doon am sax amatuñ ko mhm. kon dañuy faral di wax ne xam-xam du ay caaxaan xam-xam dañ koy jàng xam-xam lu ñuy maîtriser la mhm. xam-xam du mbub mu rëy mhm. xam-xam du daraaju ngand xam-xam du kurus gu ngand kurus yi Mhm. sikkim bi ñaanu mhm. di nappe yooyu yooyu du dara nañ bàyyi yooyu te dimbale askan wi mhm. ndax xam-xam bu la ko yàlla joxee joxulu ko ngir ngay bàkku joxulu ko ngir ngay fëgg dënn joxulu ko ngir ngay ndamu dala koo jox ngir ngay dimbale askan wi mboolem koo xam ne danga ko yor ngir di ci fàkkawoo ak di fëgg dënn daanaka sunu borom dana rocci la nga jotoon yor sax sunu borom dana ko dindi kon nan dawalaat yërmande ci jaamu yàlla yi waaw kon sëñ Modou day leer ba léegi dañuy ñëw ci ku bëgg ndombak rek waa ndombak tul képp koo xamante ni bëgg nga kon liñ ci wax ndomba gi mhm. ñi ngi koy joxee fenn fu ci nekk lu ci mel ni komikoo gi nga xamante ni fa lañ nekk muy ndakaaru mhm. di camp bi mhm. foofu la nekk képp koo xamante ni bëgg nga ko ak yeneen ak yeneen boo nu fekkee foofu dinañ la ko jox foofu dañ fay def ay bés ni ñuy defee foofu semaine noonu la ñuy defee foofu semaine ci Touba gii ñu nekk mu yoon Daaru Rahman fi la nekk képp ku taxaw Daaru Rahman boo nee sëñ moo Modou Kéemaan tur wi moom daanaka siiw na fépp foo ko wax fu nekk danañ la indi ba ci kër gi incha allahu rabbi mhm. kon sëñ Modou foofu nga ñëw ne fa doon ñëw ak yow mooy sëñ Modou maanaam ñaata suur lay am fi nga xam ne moo di Touba ak ñaata suur lay am fi nga xam ne moo di Dakar ak ko soxla sëñ Modou Fall Kéemaan te mosoo jëflante ak moom nan ngay def bu jëflante ak moom ak ban numéro téléphone ci nga koy woo ba man koo jot waa soxla si moom mi ngi aajowu ci yittey jaam ñi ndax euh, saa su nekk nu faj gi di gën a bëree ndakaaru dañuy toog ndakaaru nu faj gi di gën a bëree Touba dañuy toog Touba waaye ñaari bërëb yëpp la ñuy jaabante hmm. bu fekkee nit ki daa yittiwu pour ñëw ci ñun bu nu woowee fekk ñu ngi ndakaaru hmm. dañ koy yebal mu ñëw ndakaaru hmm. ñi ne Touba it bu ñu woowee fekk na ñu ngi tuubaa dañ koy yebal mu daal di ñëw Touba suñuy numéro 77 la 7 00 57 06 bala nga def 76 524 Mhm. wala bu fekkee numéro Gambie bi ñi nga xam ni dañuy faral di nekk Gambie du duñu yittewoo mhm. dañuy def 285 10 18 285 10 18 mooy numéro bi nga xamante ni mooy numéro Gambie bi mhm. waaye fii jamono toll moom ñi ngi daaru Rahman ndax kenn ku ci nekk xam na ni Touba mooy sunu dëkkuwaay. kenn mhm. ku ci nekk xam na ni tuubaa mooy sunu nekkuwaay. Mhm. waaye saa buñ déplacé woo ñëw Dakar ñëw Touba am na ñu nekk Dakar ñoo xamante ni ñoo nu nekkal ca bërëb bañ ne. Mhm. incha allahu rabbi. kon sëñ Modou day mel ni loolu leer na nañ kon sëñ Modou dañuy ñëw ak yow li nga xam ne moo di wàllum rab ndax na rab lëmbe ne àdduna lëmbe na jamono te dafay faral di jàpp ñu bari ndax nit rab dina jàpp nit ba du mën a am doom rab dana jàpp nit ba du mën a am borom kër rab dana jàpp nit ba du moomu tëju du mën a am dara kooku ñooñu nga xam ne rab téye na leen ab gàllankoor leen gàllankoor goo xam ne lépp luñ sumb rek mu am ak gàllankoor nan ngay jëfalante ak ñooñu waaw damay faral di wax ni bépp rab a ba ci dangara dangara Moussa ñaam hmm. boo xamante ni tënk nit moo xam muy sénégalais wala moo xam muy tubaab wala moo xam muy gambien wala moo xam muy naar olof pël séeréel saraxulle bépp rab boo xamante ni dañ naan ay rabu cosaan la hmm. wala rab boo xamante ni nee nañ dugg na nit ki bépp jinne ji féttarni ko man sëñ Modou Kémane buñ jàkkaarloo incha allahu rabbi ma fajal la ko jinne nag nu nekk lay def nit jinne dafa bare ay façon dafa am jinne joo xamante ni jinne saytaane la comme ni ko ñëpp di waxee am na ñoo xamante ni saytaane lañ koy waxee boo demee ci tubaab yi ñu di ko wax vampire bu dee sénégalais yi fii dëmm lañ koy wax waaye dëmm dafa am ñaari fànn ba tey dëmm bokkut ak cannibalisme cannibalisme day lekk nit waaye boobu ba tey bokkut ak dëmm boo ko gisee day jëfandikoo doo jëmmi doomu aadama mm. léegi nit ñi am ci xeeti jinne joo xamante ni soytaane la mm. jinne jooju boo xoolee ci ñu ëpp ci ñi muy jàpp mooy borom pouvoir yi moo xam musicien mm -hmm. wala feccikat -hmm. wala ab journaliste wala ab théâtre des fois nga gis nit koo xamante ni ab théâtre la day jeex yaram ba -hmm. ñu cotiseel ko xaalis waaye du tax mu wér des fois nga gis musicien boo xamante ni day jeex yaram ba di jeex tànk yi di neewi ñu hmm. cotiser ko xaalis waaye du wér loolu doon fajum hôpital hmm. su ko defee nga gis yaramam bi day lakk xëm mel ni da nga koo xëpp ndox mu tàng hmm. muy ngiis si dem yaram bi mel ni lu xob bi ko loolu su boobaa jinneeg saytaane moom moo ko jàpp damay faral di wax ni jinneeg seytaane mu gën a dëgër bopp ci àddina waaye lay tax nit ki am ci ndam mooy suwaat lenn la li tax nit ki am ci ndam mooy moom jinneeg saytaane googu nga dem ci ku mën dem ci ku xej di kurus ndax ñoom nag ñemewul ñi nga xamante ni danoo mën kurus ba tey bokkut ak nag ñi nga xamante ni moom mooy jinneeg doomu aadama kon damay faral di wax ne xam-xam bi doon lu lu nu mën la lu nu maîtriser la loolu moom dama koy faral di wax kon sëñ Modou day mel ne foofu moom indi ba tey da nga ñëwaat indi lu ñu si ak leeral mooy euh, la nga ne maanaam wàllum dëmm nan lay def doomu aadama bu ko jàppee wàllum li nga xam ne moo di rab nan lay def doomu aadama bu ko jàppee waa xam nga dëmm ba tey bokkut ak rab Mm-hmm. rab ba tey bokkut ak jinne mm-hmm. jinne ba tey bokkut ak rawxaan mm-hmm. rawxaan leer la des fois ma gis koo xamante ne day wax naan bi ma jàppee sa rawaxaan bi déedéet rawxaan mënu koo jàpp des fois nga gis nit koo xamante ni bu sangoo du gis bu takkee du jàpp bu naanee du jàkk loolu lan moo ko waral mooy rawxaanam dafa génn ci moom mooy leer gi nga xam ne moo war a alimenter ruu gi loolu dafa génn ci moom diggante rawaxaan ak leer nan la mel mi ngi mel ni sama jëmmi téléphone bii jëmmi téléphone bi mooy jëmmi doomu aadama mhm. ruu gi mooy piis bi mhm. rawxaan bi moom mooy crédit bi mhm. man ngaa toog fii léegi doo mën a dem mais da ngay yebal rawxaan bi da ngay woote téléphone daan ni nangam ak nangam laa bëgg ñu koy defal loolu mooy jëmmi rawxaan bi léegi loolu noonu nag su nga xamante ni dafa génn ci doomu aadama bi loolu li koy indi lenn dong ko mën a indi mooy sikkar alimenté waat nit ki. Mhm. ak lan ak sarax boo xamante ni bu yàlla gërëm la. Mhm. pas di rendi di ko jox ay rab wala di rendi di ko jox ay jinne mhm. li nga xamante ni moo jëm ci cadre dëmm. dëmm da cee am ñoo xamante ni dañoo tuub ñoom du lekk doomu aadama. ñoom ci kaw lenn la ñuy lekkee doomu aadama mhm. mooy des fois nga gis mbëdd mu am mhm. saa bu mbëdd amee nga gis fi tan yi di wàcc danga gis ay ponkoli tan yuy wàcc mhm. loolu muy buuru dëmm yi tan yi nga xamante ni ay tan yu sew la tan yooyu lu yàgg ci àdduna la yàlla moo ko bind noonu képp koo xamante ni dëmm la boo xamante ni dafa tuub xam-xam boobu waa Sénégal xamuñu ko moo tax may faral di wax ne xam-xam du lu nuy làmbatu da ngay gis digg gannaawam nga am na looy jat loo xamante ni boo ko jatee day xar bu xaree day génn hmm. bu génnee mooy waral tan bu mag boobu di génn muy céeli boobu mu génn dem fori ji hmm. bu fori jee ba ñëw jamono bi nga xamante ni ci lay ñëwee muy waxtu fajar wi hmm. kooku balaa nit ñi bu nit ñi tëddee ci lay jóg bu nit ñi di nelaw ci lay daal di wàcc léegi jamono boobu kooku moom dafa tub ci doomu aadama du laal doomu aadama des nga dégg kaadaru leblante nga xamante ni jaaxal nañu bari du caagi ne dañuy jàpp doomu aadama di ko lekk nii déedéet mhm. ñi nga xam ne dañoo am puissance mhm. dañuy xool doomu aadama mhm. sol ko benn pouvoir mu suwaat buñ ko solee pouvoir bi nag mooy sànni nañ ko ak fiir des fois nga gis làmbu am comme sa ñaari mbër di bëre ñu daan benn mbër bi kenn yuuxu ñu ak noogi loolu mooy fiir gi nga xamante ni sànni nañ ko ko des fois la Tuubaa am wala gàmm wala ay tëbaski nga gis sog yi nga xamante ni moom mooy xew ñoom ñooy sànni ak fiir buñ sànnee fiir gi àpp nañ ko fii ba déwén. di dox ci mission boobu ba keroog ñu di la jàpp. léegi cadre leblante di ñëw ci cadre leblante. ñoom ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi. yaa ngi dugg nag ci ponk bu sensible lu garaaw laa lay wax <laughs> ñoom ñooñu nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi mhm. ñoom ñooñu koo ci gis ku nekk da yore yaxu nit yaxu nit boobu suñ demee ba nga xam ne nawet bi mi ngi bëgg a ñëw dañuy jëfur mhm. buñ jëfuree moo waral des fois nga gis nit koo xamante ne péru bët ba jox biir day xonq cur mhm. mel ni da koo sotti deret moo waral des fois bu nawet bi di ñëw tàngoor wii dal nit ñi mhm. ñoom ñooy sànni pawi tàngoor woowu ànd jinne saytaane yi mooy waral des fois nga gis nit ñi bu nawet bi di ñëw ni nit ñi di faatoo moo tax may faral di wax ne faatu gii di am jinne seen loxo da cee nekk saytaane yi seen loxo da cee nekk mhm. tey boo demee ci dëkk yu demee ne ay musaala sabadolaa xalaxee ne nga dem ba ay bene dem ba ay ñaame tey bu nit faatoo dañuy woo ay boromi xam-xam yu xejj mhm. ñu am yuñ ko defal suñ ko ko defalee bu nit ki yëngatu wun ñu xam ni kii faatu na waaye bu buñ ko yëngatoo dañuy xam ni kii dafa fatt senegal rek ngay gis nit ko faatu ñu een la mere la xool ba mu yàgg daal ne bàyyi laat mi kat mere woon naa ko nun ko yóbbu waaye sa waay faatu na fekk na sa waay faatu dafa fatt sam noon nga dajeel kon yooyu damay faral di wax ni nañ ci bàyyee xel waaye ñoom seen puissance li ëpp doole fan lan nekk muy ponk boo xamante ni waa Sénégal moom la ñuy bañ a dégg lii faatu ci hôpital yi li ci ëpp saytaane yi fa lañ toog mhm. des fois nga dem hôpital gis fa ay muus yu ñuul mhm. des fois nga dem hôpital gis fa muus yu raglu mhm. des fois nga dem gis koo xamante ni li ko daloon mooy loxo buy metti day mujj faatu ndax puissance su dëmm dëgg dëgg dëgg mi ngi nekk hôpital rawatina hôpital yi Sénégal yi léegi ci cadre leblante bi nag leblante bi ñoom ñooñu koo ci gis ku nekk da yor yaxu nit suñ demee ba nga xamante ni nawet bi mi ngi bëgg a taw yaxu nit boobu dañ koy xoos bu ñu ko xoosee. Mhm. may ci seen doom yëpp mu mel ni kuy jël niwaay ki nin mhm. wala mu mel ni kuy jël ay doom seen doom yëpp daal di ciy def ndox danaan la mëqal nga mëq ñuy la naanal nga daal di naan. Mhm. léegi leblante bi day am ñoo xamante ni ñoom duñ mën a am yaxu nit dañuy jógee dëkk ak dëkk bu ñu dëkkee ñu wax la ñaata doom nga am nga ni ko nangami doom laa am mu daal lay xoosal bu la xoosalee ci yaxu nit kooku jox la nga daal di lekk. nga daal yóbbu boo yóbboo jox say doom say doom daal di lekk mu daal di mën a dal hmm. su demee ba nga xamante ni nawet bi mu ngi waaj a jeex comme fii dugub ji di palpalee hmm. nga xamante ni dugub ji day am doole hmm. da ngay gis nit ñi itam dañuy mujj waat di faatu accident yi di bari hôpital yi ñuy jël kenn ku ci nekk ñu naan diw faatu na diw nangam na léegi su ko defee nag ci cadre leblante boobu dañuy dikkaat daal di leb léegi ci diggante bi bu fekkee ki nga xamante ni moo yoroon yaxu nit ki moom dëmm boobu mhm. su demee ba nga xamante ni moom jeexal na ab yax tombante kële moom amoon yaxu nit mhm. ci kàttanu yàlla insha allahu rabbi su ko defee kële ci la koy daal di fay loolu nga dégg cadre des fois buñ jàppee dëmm wala ñu jàpp seytaane di ko faj nga dégg ñu naan maa ko lebaloon wala mm. maa ko nangamoon loolu mooy cadre leblante waaye du mm. caagee ni day jàpp doomu aadama di ko lekk mm. dama ni la bari na gone gu nekk ci rojo bi bari na paa bu nekk ci rojo bi bari na ku yor sikkim bu ngand di pratiquer ci xam-xamu asaar lam ca xam bariwut loolu maa la ko wax man sëñ Modou Kéemaan kon sëñ Modou day man loolu leer na nañ ku ko xamul woon nga xam ne lii ko sëñ Modou Fall waxe Kéemaan mooy li am mooy li nekk kon ba léegi sëñ Modou Fall dañuy wéyal li nga xam ne moo nekk laaj yi loolu foofu nga wax ne ci wàllum li nga xam ne moo di accident ndax jamono bi accident yi day faral di bari lool maanaam léelu nga waxaat tamit ci waatu li nga xam mooy faatu gi bari lool ku génn ñu naan jinne yi dañoo mer wala wala leen lu ci nekk rek doomu aadama yi jàppee ko noonu fekk yow xamuñu nam demee kon ñi nga xam ne suñu borom jox na leen xam-xam yàlla baaxal leen kon ci ñooñu lan war a mën a dem ñu laaj leen li nga xam ne lii lan moo ko waral ndax da ngay gis ni euh, internet bi léegi mu daane nan sarxe nangam nan def nangam ak nangam ak nangam ñooñu rawatina dama ci cité ku mel ni sëñ daam moom da dégg mu naan day faj ay jinne maanaam leen lu ci nekk rek moom mu faral di ci wax maanaam ñooñu dëgg dëgg dëgg daal ñoom maanaam mbir mi nan lay demee. waa ko am rab nooy fajee rab moom dañ koo war a faj. <laughs> ku am rab nooy fajee rab. da yëpp sëñ daam rek. waaye du sëñ daam kese bari na gone yu ne ci internet bi ma gis leen xaaj bi ñu bari noo am rab. Hmm. léegi ku am rab nooy fajee rab. man des fois may seetaan euh, sëriñ boo xam ne damay leer ni kii jinne moo koy mujj fel. Hmm. xam nga lu ko waral. Hmm. ñoom gone yu ñu bari danoo signé ak jinne contrat di liggéey ak jinne yàgg yàgg jinne ja da leen di wor mu fel la ci accident. wala suwaat nga tijji sam néeg fekk sëriñ booba dee ba wow loolu bari na fi. Mhm. fi ne bari na ci sëriñ soo xamante ne xaaj bi ñu bari seen kër tas na seeni soxna dem. Mhm. du cadre danoo ñàkk ngóora de ñàkk ñu ngóora de jinne ji mooy xeex ak ñoom jinne yi ñoo leen mere. Mhm. kon nit ki bala ngay digle cangaay da ngay njëkk a sang sa bopp ba pare. des fois nga gis kuy wax ni may borom jinne yi tam moom boo ne ko jàkk dangay xam ni kii dafa am rab. loolu mën xam naa ci lu baree baree baree baree bare